الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala wareef la ci jullit foo mën a toll ngay sant yàlla di yeesal sa pas-pas ci yàlla te mooy fas yéene koo jaamu bañ koo bokkaaleeg dara yaakaar ko xam ne mboole mi njëriñi àdduna ak àllaaxira du jóge ci kenn du jaar ci kenn lu dul suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom moo koy dogal ñeel ko ko neex gannaaw loolu mbokk julit suñu borom yàlla day moom moo samp ab néegam ca Makka sant ay jaamam ñu war koo aj si waxtu a ci année bu nekk mu ne wareef la ci nit ñi ñu aju ji Makka ñeel koo xam ne nii am na kattan ci loolu waaye mbokk atum ren mii waxtu wii ñuy wax ak yéen fekkoon na Sénégal ak fudul Sénégal ñu ngi teeru ujaat ya jóge Makka tey suñu borom yàlla li mu dogal moo di ne ni amul benn réew tey buy teeru ay ujaajam ndax la nga xamee ne nii yàlla nattoo nañu ko ci mbas mi mu wàcc ci kaw suuf loolu nag mbokk naka jekk daanañu waxtaane ay jëf yoo xam ne waa jakay taxawe dana am yoolu at waaye atum ren mii nag ca lañ ko war a gën a fàttale mbokk aj màkk lu rëy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg na ci ñaari mbir mbir mu jëkk ma nee na waa ji aji ba ñëw day mel ne keroog lu juddu ci bàkkaar mboole mi bàkkaaram yàlla baal ko ko mu wax ca it ne ki nga xam ne aji na makka ca defu fa lenn lu yàlla lu dul lu yàlla gërëm ku mel noonu payam rekk moom mooy aljanna loolu nag mbokk di lu màgg lool looloo tax farata bi mooy at mu ne mooy nga def ko benn yoon ci sa dund waaye bu la yàlla yombalee nga mën a dellu it loolu yu wërëy la waaye nag mbokk julit la gën a rëy li nga man mooy at mu ne nga dem makka at yooyee mi ngi yem ci lim bi nga dund gannaaw ba nga amee kàttanu acc naka la jullit nag di mën a amee junni acc wala lu ëpp loolu mbokk loolu mi ngi ko mën a amee ci la nga xame ni nii suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ne ku koy taxawe day da nga am yoolu la nga xam ne mooy yoolu acc yoolu at mbokk yàlla dana ko jagleel ñooñu doonte ne ne lépp luñ la wax ku ko def am yoolam waa ja nga xam ne dafa def jëf jooje suñu borom su ko neexee moom dubleel ko yool boobee juróom-ñaar fukk ba juróom-ñaar téeméer waaye jëmmi yoolu jëf bi rek loolee suñu borom dana ko joxe ci leneen lu dul jëf ba nga xam ne moom nga jëf mbokk la nga xamee ni nii moom mooy la jiitu ci loolu mooy jullit di sellal yéenéem heure boo xamee ni nii aj màkka taxaw na yàlla xam ci sa bopp ne tey jiide yi bu doon kattan am naa ko kenn du ma jiitu ca ña nga xam ne dañuy teewe màkka yéene bu sell boobu mbokk jullit xamal ne yool ba yàlla yi fay waa màkka yàlla dana la fay lu tol noonu lu tax lala tee ñëw mooy ngant ca loolu la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bégaloonu sahaaba yee desoon madina keroog ba mu demee ci xaswatu tabuuk di xare bu màgg bi mu mujj a def def fa ñaar fukki fan su nañu ne yonent bi aleyhi salaam ba muy nibbisi nee na sahaaba yi moo ne day am na ñu nekk madina amul benn pay bu leen yàlla bindal pay yooyu nga xam ne delloolu ca suratul anfal suñu borom ma ngi koy détaillé amul pay bu ñu yàlla bindal lu dul yàlla bindal na leen lu toll noonu ah yow mi yàlla yónni ci ñoom ñi ngi toog Madina ci seeni kër mu ne waaw waaw ndax la leen tee teew si moom mooy aj Makka moom moom mooy ah ñàkk kattan ay lor moo tege seen kaw bu ñëwuñu loolu kon mbokk mooy lu ci gën a màgg waaye nga law ba it mbokk jullit xamal ni heure boo xamee ne nii jàppale nga sa mbokk jullit mu aji makka yonent bi alayhi salaam mu ne addaalu ala xayrin ka faa'ilihi képp koo jàppale ba mu aji makka yoolu aj googee da nga ko am ca loolu itamit mbokk jullit aka bari tey ñu yàlla yaatal seeni wërsëg ñu nekk ak ñoo xamee ne ni seeni mbokk lañu seeni dëkkandoo lañu bëgg a dem makka lool cay bu doonte ne jox nga leen paas ñu dem aji ji loolee cër yi gën a màgg la bokk aji ji ñeel la wala aji ji ñeel sa waajur na doon waajur bay nga xam ne dafa dund mënutul dem wala waajur ya faatu woon nga jox nit mu dem ajali leen yooyu yëpp mbokk ay yool la yoo xamee ne nii suñu borom yàlla dana ko nangul bépp jullit boo xam ne dafa dee yàlla ngëm lañ la defal ci aj màkk yàlla dala koy jagleel booleeg yow nga am tuyaaba ju toll ni la nga xamee ne nii kay aj def na ko mbokk bokk na ci ñetteel boobu yow mi nga xam ne yàlla wërsëgal na la nga génne sa kër jëm ca jàkka ja lan moo la yëkkati mooy rek ngir jooxe ji farata ba kese moo la yëkkati mbokk yonent bi alayhi salaam nee na ki génne këram day jëm néegu bi yàlla ngir jooxe farata ku mel noonu yoolub aj yàlla subhaanahu wa taala dana ko ko bindal ndax ujaaj bi ma nga génne këram jëm makka loolee ngir sakku ngërëmal yàlla yow it yaa ngi génne sa kër jëm ca néegu bi yàlla ba muy jàkka ja ngiree sakku ngërëmal yàlla looloo tax bépp julli farata boo xam ne julli nga ko ca jàkka ca yàlla tax da nga am la nga xamee ne nii mooy yoolu aj boobee doonte ne li ci gën a mat mooy la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nee na amul kenn koy fekke jullik fajar ca jàkka ja ba mu jullee fajar ba pare mu toog fa nag di tudd yàlla di tudd yàlla ba baa jant ba di fenk nga daal di jóg julli ñaari rakka te mooy fi jant bi di fenke apan nga teg ci ay 15 minutes nga daal di jóg julli ñaari rakka yonent bi alayhi salaam mu ne ko mel nii day yàlla dana ko may yoolu at ak umra mu teg ca wax ñetti yoon taammatin taammatin taamma yoolu aj ak umra bu mat sëkk sëkk sëkk suñu borom yàlla dana ko jagleel loolu loolee mbokk jullit ku nekk ci ñun war a di jéem koo dabu sa kemtalal kattan yow mi liggéey bés bu nekk mënoo ko waaye mën nga ko def dimanche ba dimanche wala benn yoon ci weer wu nekk loolee ñu bàyyi ci xel bu baax doonte ne ne boroom xam-xam yi li yonent bi alayhi salaam wax ci góor gu dem ca jàkka ju julli bokk na ci la nga xam ne loolu lañ doon tontu ci soxna bi nga xam ne moom julli ca këram day moo ëpp yool ci moom waaw bu dee moom daa julli fajar ba pare toog ca fam doon jullee di tudd yàlla di jàng alxuraan di jéggalu ba baa jant bi fenk mu jóg julli ñaari rakka ndax dana am yool boobee loolee mbokk la ca borom xam-xam yi doon ubbee mooy ahakay dana am yool boobu ndax moom la góor ñiy wuti ca jàkka ja lu mel noonu mi ngi koy am ci biir këram loolu it yow soxna si bu la ko yàlla mayee nga koy def bés bu nekk fa lillahi alhamdu waaye boo ko mënul ay waay na doon même benn yoon par semaine nga saxal boo jullee ba pare fajar toog fa nga jullee di def ay zikrullah baba jant bi fenk nga teg ci quelques minutes daal di jóg julli ñaari rakka loolee danañu fàttali sunu yaay Juwayra nekkoon soxna yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn na ci suba ci aajoom man ka bàyyi fam jullee fajar toog fa di def ay zikrullah ba yonent bi dem ca aajoom ba dellusiwaat ca yoor yoor mi ngi fekk suñu yaay Juwayra mi nga toog fam toog di def zikrullah mu ne ko ay Juwayra moo ne sa gannaaw day wax naa ñeenti kaddu yoo xam ne buñ ko pesé woon ak li nga waxoon ca suba ba léegi ñeenti kaddu yooyu moo ëpp tuyaaba ca yàlla jalla wa ala mu ne ko ay yëmi yàlla yu ne jàngal ma ko mu ne ko da nga naan subhaanallahi wa biham wa bihamdihi adada xalqi ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي mu ne ko lii day boo ko waxee waa ji xëyoon sëlmal fajar ba yoor yoor di jàng alxuraan ak zikrullah ak lu mën a doon yow kàddu yi nga wax ko ñetti yoon subhaanallah wa bihamdihi adada xalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midaada kalimaati subhaanallah wa bihamdihi adada xalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midaada kalimaati nga wax ko ñetti yoon loolee da ngay gis ne moo ëpp tuyaaba ju toll noonu lépp kon nga la way loolu ñu bañ koo sàggane yéen góor ñi yàlla farataal jàkka ya ak yéen jigéen ñi yàlla subhanahu wa taala a may ngeen toog di mën a jullee seen kër mbokk bokk na ci loolu yonent bi alayhi salaam wax ni yonent bi nee na amul kenn kuy génne këram dem ca jàkka ja man gada ila almasjidi laa yuridu illa an yataallama xayran aw yuallimahu kaana lahu ka ajri xaajin taammatin xajjuhu xajjatuhu yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na amul kuy jóge këram dem ca jàkka ja lan moo ko yóbbu ngiree jàng fa benn masala ci wàllu diineem wala jàngale ji fa benn masala ci wàllu diineem lu dul yàlla may ko yoolu aj ak umra bu mat sëkk mbokk loolu mi ngi noonu ndax kat jàkka kenn taxawulu ko woon pour julli kese jàkka dañ koo taxawal ngir julli waaye ngir jàngale diine yàlla ji mi ngi noonu jullit ñi seen école seen université seen faculté seen lépp mooy la nga xam ne mooy jàkka ja loolu it nga la waay heure boo déggee ne am na lu ñuy jàngale ca jàkka ja ngalla wayu solal saw dal jéem koo mën a fekke ji loolee fa lilahi alhamd su dee jàkka ji àllarba yi ñu ngi fiy joxe ay bind ci wàllu alquran dimanche ñu ngi fiy joxe ay bind ci wàllu fiq loo xam ne ubbil nañ ko góor ñi ak jigéen ñi yàlla nattoo nañu mbas moo xam ne tax na ba jigéen ñi daan daje fii altine bu nekk ak ajjuma bu nekk di jàngale ci seen biir ñoomu neen loolee gëj naa am ndax li ñu yàlla nattoo ñu ngi ñaan yàlla na yàlla delloo si wat ko ci jàmm mbokk julit bokk na ci la nga xamee ne nii ab julit war na ko bàyyi xel moo di ne ne heure boo xamee ne nii yaa ngi def ay jaamu yàlla nga sellal ko ujaaja la ñu amit da nga ko am sahabatul kiram fuqara ya dañoo ñëw ci yonent bi alayhi salaam ne ko yu mu yàlla yónni utal ñu pexe waay ndax suñu mbokk borom alal yi ñoom bu dee jihaate ñi ngi àndi jihaat bu dee jullee ñi ngi àndi julli waaye ñoom ñi ngi jël seen alal di génn zakat ñun amuñu alal at mu nekk ñu ngi ñuy tàggu dem màkk ñun amuñu alal yonent bi ne kaay ma wax leen loo xam ne bu ngeen koy def amul kenn ku leen di mën a raw lu dul ne da ngeen koy dab te da ngeen raw keneen ku dul yéen ca mooy heure boo jullee ba pare nga wax subhanallah fanweeri yoon ak ñett alhamdulillah fanweeri yoon ak ñett allahu akbar fanweeri yoon ak ñett nga tëje ko laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mbokk loolu nga xam ne bëgg a juddoo ba tey yaa ngi koy def ngal la way bàyyi waatal xel taxawaay bi muy taxaw mi ngi taxaw taxawaayu aj umra jihaad zakat lépp loo xam ne nit yi nga koy jaamoo yàlla loolu mi ngi taxaw taxawaayam kon moo tax ba nga la way yow góor ak jigéen sellal ko bul jàpp rek ne loo war a def mu jóg subhanallah subhanallah subhanallah déedéet comme ni ngay gis nit ñi ni ñu koy defee seeni baaraam sellal ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar muy un bu la neexee nga ne subhanallah subhanallah subhanallah ba ma 33 doo ko jël alhamdulillah 33 allahu akbar 33 nga sellal ko ci xam ne mbokk loole lu màgg màgg màgg la ñu bàyyi xarit ñi yàlla deseel ay wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay ñëw ne ci moom ayu mi yàlla yónni man ka dama bëggoon a génn dem jihaad mi ngi noonu yonent bi alayhi salaam ne ko waaw ndax xanaa yow amoo benn wayjur muy dund mu ne ko hakay mu ne xamal ne day nga génn jihaati génn aji génni loo mën a defi nga dem toog ci wetam ba am ngërëmam moo la gënal loolu lépp loolu lépp bu ko defee yéen ndaw ñi it ngeen bàyyi ci xel mbokk lii benn tënk la bu ndaw ngir lii la minute yi may ca la nga xamee ni ay jaamu yàlla lañu bépp jullit boo xam ne sellal na ko lañ yaakaaroon ca aj Makka ga yàlla subhanahu wa taala dana ko ko jagleel yal na yàlla wërsëgal ñu yoolu aj ak umra yu mat sëkk yal na yàlla boole ñu ca ñooñu ajjana ya natt bi tax ba aj Makka tey ñu yemale ko biir Makka yal na ko yàlla tegg ci jàmm ba lu ëpp la daan daja Makka daja fa ci année yi nga xam ne ñooy ñëw ca kanam yal na yàlla may ñu aafiye fi dunya wal axira jagleel ñu ngërëmam fi dunya wal axira teggal ñu suñuy tiis ak suñuy njàqare ubbil ñu bunti ngëneelam ak bunti xéewalam defal ñu ajjana firdaws mi suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina azab annar rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin